Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf garaas ga jeex na Macky Sall na xam ne àpp beeg muñ bi doy na observateur moo ñu xëy xamal loole yéenekaay bi nañu waa M23 ab doxub ñaxtu la ñu bëgg dox ba ca palais de la république nee nañu Macky Sall bu soppiwul aw doxin danañu ko defale noone ba tax na waa benn Bokk Yaakaar amal nañ démb ab daje ci seen biir daje ba lañ ca jublu moo di seeti pexe yu ñuy def ngir nit ñi bañ a fipp wala bokk nit ñi bañ di amee yaakaar ju tas ci Macky Sall Sud Quotidien nañu ndaw nekk ci M23 ci boppam ñoo fas yéene amal doxub ñaxtu boobe ndax dañuy ñawlu Macky Sall ak na muy doxale loolee direct info nañu ko njëkk yëkkati kàddoom di ñaawlu doxinu Macky moo di Fou Malade bokk ci ñi sos mouvement Y'en a marre juróom benn weer yi mu jot a def ci bopp réew mi daf leen di fàttali Abdoulaye Wade ni mu fi nekke woon Fou Malade yamu ca ndax nee bés bu noppee def li ko askan wi sant rek bu boobaa daan yi ciw ndoddam la koy fekk Macky ci xët mu njëkk Le Quotidien bi nañu demam ga mu demoon ci HLM ngir seeti xalifa généralu dox diggante Macky Sall njiit réew mi ak Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke Serigne bi moo leen dégluwul nekkoon du gisee ak Macky Sall keneen ku gisee ak Serigne bi wala boog ñeneen ñu gisee ak bi wal fajir grand place xëy ci dikk ak ñun moo di Idrissa Seck ndaamal Kajoor mu se bi nañu la ca doy waar nag moo di ca kër Serigne ba ca HLM Idrissa Seck dajana fa ak Aliou Sow te ñoom ñaar ku xam seenub diggante xam ne caaxaan boolewu leen ñaar ñi bokk fu ñu nekk di sàkkul bañ na ko te doyen des six di Maodo Sémou Diouf yamul foofee ndax bloqué na compte ndongo yi ba noppi lépp loo xam ne am na ko mu sàkk ñu yëral ko ko ba xam lu ca nekk fan la ko jëlee ñu jëli réew mi quotidien ak ak yu belleer fay sàcc dem dajj ko yéen a bi dañu waa police jug nañu ngir di rëbb ña def loolee te nag lañu jàpp moo di ay gan ñoo xam ne dëkkuñu ci réew mi ñoo def ñaawteef góoge ba ñu koy def ay doomi réew mi ñoo leen ci dimbali observateur ci catholique yooye ba ñu ko xaymaa ci koppar lu mu gàtt-gàtt yegg na ci juróom-ñaari milliards juróomi milliards libération nañu moom la ICE di inspection générale d'état di wër ña ca bitim réew ñoom waa ICE gannaaw ba ñu jógee ca États-Unis dem nañu ca France lépp nag ci wàllu taax la di immobilier yéenekaay bi nañu ci jamono ji Abdoulaye Wade nekkee ci nguur gi ca la loolee xewoon journal bi yamul foofee ndax xamal nañu ne ANOCI it ña ca nekkoon booy lépp loo xamante ni ji ay tawat laa ki ñaxtoo ki njàmbat ba woo ci jàngalekat yi ñu lijjanti ko ba mu ne cook bu ko defee njàng mi mën a tegu ci yoon ndonga yi dem jàngi jàngalekat yi dem jàngale ji mbër it mën a bëre ji maa nga ca làmb ja borom taq ripp di tafatin xëy na taq ci xët mu njëkk sunu làmb tafatin sayan du bawal mbooloo mbooleem lu ko journaliste sunu làmb yi laaj xëy na ko tont nee na VIP yi nekk ci làmb ji yëpp la leen tere nelaw jàmm moo di nu ñu bëree ak man tafa ne am na ay promoteur yu dikk seetsi ko ngir dox kombaam diggam ak Balla Gaye 2 wala kombaam diggam ak Modou combat diggam ak Eumeu Sène waaye ku ñu ma ci jox ma bëreeg moom ba mu des Tyson Lac de Guiers 2 wala bokk Baboy ma dellu ci libération xew-xewu jamono ba fa nekk journal bi nañu am na lu xew loo xam ne ñu ngi koy ruumandaat bis bu jëmee kaw dinañu bàyyi mbirum Cheikh Yérim Seck ak Ndeye Aïssata Tall wax ci ñoom ki lay yéenekaay bi nañu ab journaliste la bu ñu ràññee lool ndax làmmiñam mu ñaw ñëpp xam nañu ko journaliste bi jamono ji ma nga ca loxoy yoon ndax dafa am benn waay bu ñu ba ñu gaañante ca l'hôpital la la ñu leen mujj yóbbu police jigéen la Tamsir Ndiaye Jupiter la jamono ji ma nga ca commissariat central bu Ndakaaru bi ko jabar ji bàyyi ci lal bi ne ko maa ngi dem rooti mu toog ba mu yàgg gisul jabar ja mu dem ci wetu teen ba gis ne jabar ja ma nga faak beneen waaye ñu ànd di siim seen mari ngàññi jëkkër ji ne ba mu yegsee ci la jël aw yet fëgg ko waa ji daw mu gàddu jabar ji dugal ci biir yéene bi nañu waaye la ca yéeme mooy ba mu taxawee ca kanamu siis ba di wax kenn gëmu moomu ko dafa dugal ay loxoom ci poos bi génnee ci ñaari slip tegal ko siis bi ci taabal ji ne ko slip bi waajee ko moom beneen slip bi sama slip bu jabar la ba ma leen bettee ñu daw ca laa ko forteye <laughs>